sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey ahousubillahi min alseytaan irajim bismillahi rahmaani rahim wa inni uiduha bika wa zurriyataha min alseytaan irajim rabbi ahousu bika min hamazati sayatini wa ahousu bika rabbi an yahdurun ahousu bi kalimatillahi taamati min sarri ma xalaq asalaamaaleykum wa rahmatullahi mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziyaare eh, di jiital ci nuyoo bi cheikh mouhamadul muntaqa ibnu cheikh ahmadul bachir xalifatu am li tariqal muridiya di ñaan yàlla yàggal ko fi tam ànd ak wér lool waaye di ci toftal Cheikh Sidi Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Mourtada moom mi nga xamante ni mbooloo mi nga xam ni ñoo daje fii tey di mbooloom Sarsara liggéey bi ñuy def ñu ngi koy defee ci ndigalam kon ku gis jotaay bi ak mbooloo mi fi teew yëpp dafa am lu ko sabab euh, li ko sabab nag di liggéeyub Sarsara Sarsara di barab boo xam mu nga nekk ca Mauritanie. waaye ay mbooloo yu uute di ci liggéey fii ci biir réew mi ak ca Mauritanie ak ci bitim réew ñu am nag loo xamante ni dañ koy def ci ndigalu sëriñ bi di ko waajalee màggalu Sarsara te mooy journée bu mag bu ñuy amal fii ci Masalikul naan muy journée bi nga xamante ni ñu ngi koy def le cinq février mbooleem kuréel yi nga xam ñooy tënku ci liggéeyu Sarsara di ko taxawal ci turu cellule de communication cellule de communication boobu nag <clears throat> bépp kuréel boo xam ni yaa ngi yëngu ci Sarsara yaa ngi foofu ci ndigalu Serigne Sidi Mbacke jubluwaayam mooy ngir mbooleem kuréel yi lépp lu ñuy def ñuy àndandoo di ko def di xàccandoo di dóorandoo ba tax na ñu tuddee ko kuréelu Sarsara bennoo ngir lépp lu ñuy def ñu am consensus suñu diggante ba mën koo def ni ko sëriñ bi bëggee euh, li nga xamante ni nag tey moo tax ñu daje fii bi ñu dajee ci këram def fa réunion bu am solo mu wax ni journée bi ren dafa war a jël niveau ci plan de communication wàllu collecte de fonds ndax ku ne xam na ni am na ay travaux yu am solo yoo xam ñu ngi ko war a amal foofu ci Sarsara muy masjid bi nga xam ni moom lañ fay defal sëriñ bi te sëriñ Touba lépp lu ko war di defaral néegub yàlla moo ko ci gënal loolu nag tax sëñ bi ne nañ def li nga xamante ni mooy commission boo xamante ni ñu ngi koy tuddee. comité de pilotage muy piloté journée bi ñu war a taxawal fii le 25 février ci wàllum organisation ak wàllum communication ak collecte de fonds loolu nag moo tax ñu daje fii tey amal li nga xamante ni mooy avant appel avant première li ñu si jublu mooy euh, lancer message boo xam ni nit ñi daanu xam ni le 25 février daanu fi amal bis bu mag ngir waajale ko màggalu Sarsara loolu nag kuréel gi ñu tudd muy commission comité de pilotage bi euh, ñi ko séq ñëpp ñu ngi fii ku mel ni kuréel Sarsara yaatal liggéeyu Serigne Touba ci turu Serigne Bassirou Amar moo ko jiite kuréel Radito Anil Mawla Serigne Babacar Faye jiite ko Seydina Omar Ka teewal ko fi euh, sëriñ Assane mi nga xamante ni moo jóge gànnaar jiital fi teewal fi ci turu Serigne Madiop Diop mi nga xam ni moo jiite gànnaar mboolem daayira yi fa nekk ñu tuddee ko fédération daayira Murit à Mauritanie moom mi nga xam moo yor seen communication teew fi kon dañuy jox sëñ Assane moom mi nga xam ni moo yor wàllu communication foofu ci Mauritanie teewal leen fi mu yëkkati ay kàddu ngir mën a leeral mbooloo mi fi teew waa gànnaar ni ñuy waajale bés boobu di Sarsara ak yan matuwaay lañ ci jël ngir lépp rek mën a tasaare liggéey bi nga xamante ni moo jëm foofu ci Sarsara asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi fi teew ñu ngi leen di ziar di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan yàlla sunu boroom yàggal ko fi di nuyu Serigne Sidi Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Mourtada di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo toog ci jataay bi di nuyu kilifa yi fi teew yëpp di am mbégte ci jataay bi. di yëkkati tey kàddu ci turu fédération Seexul Xadim bi nga xamante ni sëñ Madiop Baye Fall moo ko jiite ci ndigalal sëriñ Sidi Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Mourtada ndax fédération boobu nga xamante ni moo ŋànk liggéeyu Sarsara ba ñëpp ñëw ànd ci ak ñoom ci ndigalal sëriñ Sidi Mbacke la ndax moo toog ba yàgg mu ne na ngeen def fédération muy daayira yi nekk Mauritanie yëpp yëpp lëkkaloo àndandoo ci benn liggéey muy liggéeyu sëriñ Touba bi seen kàddu lay waxe ci kàddu yi ma xamante ni moom laay yëkkati comme ni ko sëriñ Fallou waxee maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu sëñ Basirou di nuyu Seydina Aliou ak sëriñ moor mi ak mboolem ñu toog ci jataay bi liggéeyu Sarsara nag day liggéey boo xamante ne liggéey bu kawe la bu yàlla dogalee Serigne Sidi Mbacke jon ndigal li ànd ceeg ñim ci war a àndal ñëpp. muy murit yi nga xamante ni ñoo nekk ci àdduna bi yëpp ndax damay wax ni Sarsara liggéey la bu kawe liggéey la boo xam ni tamit sëriñ bi bëgg-bëggam mooy fépp fu taalibe ba nekk si àdduna bi nga xam ni liggéeyu Sarsara bi war nga cee dugal sa loxo loolu moo sabab mu jël liggéey bi dénk ko cellule de communication ngir xam ne lim ci bëgg moom faw rek communication bi dox mooy tax bëgg-bëggam am ci Sarsara saa suñu toogee day wax nii li ma bëgg ci liggéey bi day ba léegi nii des na ndax bëgg naa mu jël niveau jël niveau bi nag da cee am ñum ci yaakaar muy cellule de communication comme ni ko sëñ Fallou waxee muy kuréel boo xamante ni moo lëkkalee ñëpp ñi nga xam ñoo yëngu ci Sarsara loolu nag lëm ci jublu mooy ay taalibe fu ñu mën a nekk la leen war mooy àndandoo xàccandoo dóorandoo te xam ni Sarsara barab la boo xamante ni fépp foo xamante ni liggéey bi àgg na fa nañ jàpp ni taalibe yi rek ñoo ko fa mën a àggale kon nag ñi ngi soññ képp koo xam ni murit nga foo mën a nekk si àdduna nga jàpp ci bisu Sarsara ndax Sarsara kat Serigne Touba lam ci diggee ñun ñëpp xam nañ ko benn barab la ci àdduna bu Serigne Touba wax ni fii ku ma fekk ñu jégal say bàkkaar àdduna ak àllaaxira muy inna lazina ila Sarsara xat xasado ziaratin faraxoo daare ni aw saara kon nag fu ay mën a nekk fekk ren déwén xamoo fan la lay fekk kon ñun ñëpp nañ waaj uti Sarsara waaye balaa Sarsara ñëw nag dafa am luy jiitu Sarsara muy bis bi nga xamante ni moom lañ dëgmal ñu koy defee fii ci Masalikul Jinaan tey jii ñuy woo bépp murit bu nekk ci àdduna bi fooy mën a nekk te mën a jige si le 25 février lañ koy amal fii kon woote boobu laa doon def ci turu sëñ Madiop mi nga xam ne moo ñu jiite waaye ci turu waa gànnaar yëpp ci turu murit yi nekk Mauritanie yëpp ci ndigalal Serigne Sidi Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Mourtada képp ku fi teew yàlla na nga am ngërëmul Serigne Touba wasalaamaaleykum wa rahmatullahi kàddu yi am na solo dañuy jox sëriñ Bassirou Amar moom mi nga xamante ni moo jiite kuréelu Sarsara yaatal liggéey Serigne Touba fii ci Dakar. salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi fu ngeen mën di nekk ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi loolu te di ko ñaanal kilifa yëpp woote baa ngoog li xew mooy wàccaayu Sarsara le 25 février fii ci Masaalikul Jinaan à partir de 10 heures ci suba ba 20 ñu ngi ci woo mbokku taalibe yëpp bés boobu mooy cérémonie de lancement bu activité wu Sarsara édition 2023 ñi ngi jiital ci woote bi euh, Serigne Mamor mu Cheikh Mouhamadul Mourtala mi nga xam ni mooy kilifa ak sëñ Sidi ak rakkam Serigne Fallou mi nga xam ni moom la sëñ Sallou joxoon ndigal muy président màggal gi ak njabootu boppam ku mel ni Soxna Bintu Fall. soxna Marème Mbacké ak Serigne mam Cheikh ñi nga xam ne ay jàmbaar lañu ci euh, liggéey bi di ci woo alxaaji mbakk yu fay Serigne bi mu ngi ko ci woo bu baax di ci woo Serigne bay Laye Ndiaye représentant xalif général de Mourides pikin di ci woo Serigne Maguette Diop mi nga xam ne moo jiite daayira port novembre di ci woo Baye Ndiouga Dieng mi nga xam ne moo jiite ñaari guddi Ndakaaru yi di ci woo soxna Gàmmu Diop mi nga xam ni mooy mareenu kuréelu Sarsara moom it di ñu dalal fii ci euh, Masaalikul Jinaan euh, di nuyu baax nag fi ñu war ki ñu waroon a jiital muy soxna Ndeye Mbacke ñu ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam di ko sant bu baax ci teewaay bu am solo bi mu def euh, soxna Ndeye jaw Maam jaara moo jiite Sarsara fële ca Njaañ Serigne Armas yi daayira Xisnu Labraar jiite Sarsara ca Thiès moog soxna Kiné Ndiaye Serigne Moudam Ngom jiite cellule bu Ngoundiane moom it teew na fi ak euh, Serigne Bilal Sidibé Serigne Babacar Ndiaye Ngéeñeen sëñ Ablaye Cissé Louga Serigne Ousmane Samb Touba soxna Soda Xumma euh, mi nga xam moo jiite kuréel ju liggéey ji gi Serigne ñi Ñing Mbuur ñi ngi woo daayira yi ñi nga xam ne ñoo seq liggéey bi bokk ci kuréelu benn bi bàyyiwuñu kenn di woo autorité administrative yi di woo autorité religieux yi bés boobu ñu ngi ci woo jullit ñëpp association islamique yi fii lay amee ci Masaalikul Jinaan képp koo xam ne yaa ngi dégg suñu kàddu bépp jullit rek ñu ngi lay woo ndax sëriñ bi daa yaatal innamal mu'minuuna ixwa faslihu bayna axawaykum loolu la ñuy sëriñ Tuubaa digle la aju nag ci sarsaara dat ba ak demin wa ak ya ci aju ak nañu koy organiser ren lépp incha allah daañu ko exposer ci bés boobu incha allahu taala kon loolu mooy woote bi bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñenn bu defee kon ñu joxe kàddu yi rek asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. kon dañu jox euh, Seydina Omar Ka moom mi nga xam moo fi moo fi teewal kuréel gu Raddatu Anil Mawla ci njiital Sëñ Babacar Faye. aoudu billahi min ashaytaani rajim bismillahi minhu ibtidaai wa arjo hindahu nuzula alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana alhuda bada ama baad asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit di ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñëpp waa ni ko mbokk yi waxee rek muy bis boo xam ni ñoo ko bokk déggandoo ñu ñëpp may may woote nag ci turu daaira raditu anil mawla taala lazi rabba ci njiital sëriñ Babacar Faye mi nga xam ni moo waroon a toog fii tey woote kàddoom waaye ngànt tax ñëwul ñu teewal ko fi ak ñi nga xam ñoom la ñu bokkal daayira bi yëpp di woo képp koo xam ne si rek yaa ngi bokk ci kuréelu daayira rajitu anil mawla taala la si rabba muy bis boo xam ni bëgguñu kenn des ci ginnaaw bëgguñu kenn yox yoxal ci ñu ngi ci fépp fu ñuy fu ñuy ci région yi euh, ñu ngi bàyyikoo ba Kaolack bokk ci kuréel bokk ci ñi taxaw liggéey bi di woo ñi nga xam ñoom laa bokkal nekk foofu Kaolack di wax ni liggéey la boo xam ni fépp ab jullit nekk rek war nga cee sof dugal ci sa loxo sa kàttan sa man-man ndax liggéey Sëñ Tuubaa la te Sëñ Tuubaa lu ko waay defal lu nekk rek am na ak payam ndax li mu waxoon ni ku ma defal loo man ma defal la loo mënut ku ma defal loo mënut ma defal la jomm kon nag war nañoo jaayante bu baax a baax ba ni ko sëriñ sii di bëggee bis bi ñu fexe koo taxawoo noonu kon nag ñu woo bépp jullit bàyyiwuñu kenn rawatina kuréel yi nga xam nag ñooy yëngatu ci yoonu sëriñ bi muy kuréelu xasaay xasaayit wala jàngkat yi wala kuréel mu mën a rek ñu ngi lay woo ci bis boobu mu amee fii ca Masaalikul Jinaan le 25 février kon ñu ngi sant yàlla sunu borom di ñaan yàlla yàlla ñu ci yàlla yóbbu ak salaam yàlla nañu yàlla defal tawfeex ak taysiir ci barkeb Seexul Xadiim jërë ngeen jëf jërëjëf Seydina Omar Ka ñu ngi lay sant ci kàddu yi mu yëkkatil kàddu Sëñ Babacar Faye njiital raditu anil mawla wax ci turu raditu anil mawla kon euh, mbokk yi dañuy jox euh, Seydina Alioune Ba moom mi nga xamante ni mooy secrétaire général cellule de communication bi nga xam ni sëñ bi moo ko taxawul wax ni nañ ko tuddee cellule de communication international Sarsara ni ma ko waxee sama njëlbeenu kàddu mu yor secretaire général bi lépp loo xamante ni nii ñu ngi koy amal mu ci déggoog sëñ bi euh, ba nga xamante ni am nañ ci ndigalam ñu koy door a jëf kon nag dañ koy jox kàddu mu leeral euh, ni nga xamante ni noonu la kuréel gi di doxee aouzu billahi mina shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala cheikhina wa ahmadina alxadima rasulillahi salallahu taala alayhi wa sallam wan xudwatina al azim maam cheikh ibrahima fall lam fall babu muridina euh, mbokki julli ji mbokki taalibe yi ñu ngi di siyaar bu baax a baax di nuyu ñëpp kenn ku ne ci turam ak santam euh, rawatina suñu yaay yu fi toog ak suñuy baay yu fi toog ak suñuy mbokki taalibe yu fi toog ñu ngi jox ñëpp rek kenn ku nekk yéeguwaayam bi mu amee suñu borom di ñaanal sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Mouhamadou Mourtada taxawaayam yàgg loolu tam ànd moom mi nga xam ne ne moo joxe ndigal jotaay bi am kon ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax Euh, di ñëw ci jotaay bi di nuyu soxna Ndey Mbàkke Bintu euh, soxna Bintu Mbàkke moom sëñ Mbàkke Madina di ko jox wàccuwaayam bu baax a baax ndax moo fi toogee toogaayu Sëriñ Tuubaa fii ñu toog nii euh, bu loolu weesoo ñuy dugg ci liggéey bi ñëpp xam nañ ne cellule de communication bi cellule de communication international Sénégal Mauritanie Sëriñ Siidi jëfam la moom moo ko santaane moo ko sos jël kuréel yëpp yi yëngu ci Sarsara lëkkale leen boole leen ñu doon lenn doon benn sant leen nag ni ñuy yëkkati di tegandoo ci wàllum liggéeyu Sarsara waaw wax naa ko fi sànq waa dinaa ko fi waxaat looloo waral kon euh, ngeen gis ñëpp booloo nii doon benn daje fi fas yéene yëkkatindoo tegandoo euh, fas yéene yëkkatindoo tegandoo ngir lan jëfee ndigalu sëñ Sidi boobu. waaw ndaxte murit moom amul lu dul jëfee ndigal waaw saa yu wàccee euh, ndigal rek na xam na ne nekkatul ci sangem waaw loolu moom euh, na ko ñëpp maasee xam loolu weesoo euh, ña ñi yëgal mbokki taalibe bi yëpp ne sëriñ bi installé na ci ndigalam benn comité de pilotage bi nga xam ne ne mooy yore wàllum bis bii ñu dëgmal ndaxte toogaay suñu toogaay fii du lenn lu dul waajal bisu 25 février bi ñu dëkkmal bis boobu nag la ñuy yëgle màggalu Sarsara joxewaale date bi joxewaale activité ya fay am yëpp waaw kon looloo waral suñu euh, dajee tey fii ci Masaalikul Jinaan waaw euh, sëriñ bi itamit euh, joxe na ndigal ñu taxawal ab commité de collect cellule de collecte waaw bu nga xam ne ne daanaka ni ko bëggee ak lam ci santaane fas nañ yéene defee ko noonee waaw bu loolu weesoo itamit euh, ñi jàll ci bis bi nga xam ne moom leen dëgmal yëgal mbokki taalibe yi ak mbokki jullit yëpp la nga xam ne ne ñu ngi ko fay nësër def bu bis baa incha allah ci euh, euh, bis bi tàmbale ko 10 heures ba 20 heures demi incha allah waaw ci teewaayu Serigne Sidi Mbacke nag di yëgal nag mbokki taalibe yëpp ne atum ren ji màggaluk Sarsara ñu ngi ko parrainé ñu ngi ko duppee Serigne Mouhamadou Fadel Mbacke. waaw moom mi nga xam ne ne mooy ñaareelu xalifa sëriñ Touba. waaw te ñëpp xam ko nag ci kéemaanam ñëpp xam ko ci bëggam Serigne Touba nga xam ne ne kenn dabu ko ci. waaw te muy kenn loolu foofu foofee lañ ci yem kon ñu ci woo mbokki taalibe yëpp soppe yi ak taalibe yi ñëpp rek rawatina soppe Serigne Fallou yi ñoo ngi ciy woo ñëpp waaw. Euh, di jàll ci loolu la wax programme bi kon bu bis baa incha allah 25 février bi ñu bii ñu jëm. bu mm. bis baa 10 heures 11 heures fas nañ yéene incha allah wàcce kaamil jàng kaamil. Mm-hmm. Euh, addiyal ko Cheikhul Khadim xaadalahu laahu maxtaara lahu mm-hmm. euh, 11 heures 14 heures fas nañ fas nañ yéene jàng ay xasaayit mm-hmm. dana am ay jàngkat yu fi ne nañ leen jox ñi feeñal seen yéene ci bis ba bu 14 heures 15 heures jotee. ñi dallu joxe bernde yi ñëpp xam nañ ne jotaayu murit murit bernde mënu faa ñàkk mm-hmm. waaw bu 15 heures 16 heures jotee dana am ab plateau plateau boobu nag dañ koy médiatiser ci lan activité euh, les activités de Serigne Touba en Mauritanie jaar-jaaru Serigne bi ci Mauritanie incha allah moom tamit danañ ko fa amal euh, bu bis baa incha allah ci euh, diggante 15 heures 16 heures 16 heures dana am visite de l' exposition sur la commission mosquée Sarsara en Mauritanie waaw ki jiite commission bi mi ngi nee toog moo feggoog ñun ci suñu euh, euh, càmmooy sëñ Mouhamadou Soxna mi ngi nee toog moom moo jiite commission mosquée Sarsara dana fa amal ab exposition incha allah euh, dañuy danañ sopp na képp ku fa teew visiter exposition bi moom nag moo ko jiite waaw 17 heures danañ julli tàkkusaan ba pare amal ab pause tuuti 17 heures et quart 18 heures et dana am discours waaw maanaam danañ jox ñenn ci ñafa teew ci kilifa yi ñu yëkkati ay kàddu waaw itamit lii ñu def nii danañ ko fa defaat danañ jàllale li waral daje ba 18 heures et demi 19 dana dana am tamit ci ay invité ñu nga xam ne dinañ euh, jël micro bi jox leen ñoom tamit ñu feeñal seen yéene jox leen ay kàddu 19 heures et moom tamit euh, pause lay doon ñu julli timis waa nag ñëpp xam nañ Sëriñ Tuubaa ni fokkee fonkee julli loo ne ba julli jot da nga koy da nga koy tegandi julli ba noppi door ko wéyal waaw 19 heures et quart 20 heures euh, discours de Serigne Sidi Mbacké moom mi nga xam ne ne moo jiite liggéey bi jiite jiite euh, ñëpp ci wàllum Sarsara moom la ñuy jox kàddu gi mu yëkkati ay kaddu euh, yeesalaat ndigal la muy joxe ba noppi ñaanal mbooloo waaw kon ñun tamit loolu lañ amoon lu ñuy joxe ñu ngi wàccee foofu suñu kaddu di jégal di jégaluwaat mbokki taalibe bi yëpp di ñaan ñu àgg saak jàmm incha allah. jërë ngeen jëf. bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu alhamdulilahi rabbi alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah salallahu muhammad yéen mbokki jullit yéen mbokki taaliba yi maa ngi leen di bu baax a baax waaye ziyaar bi maa ngi ci jiital saxi Muntaxa di ko ñaanal sama borom yàggal ko yàlla dëgëral ko fi di teg bu baax a baax sunu kilifa sama ndey Mbàkke di ko ziyaar bu baax Mbàkke rafet lu taxawaayam rafet lu teewaayam rafetlu ànd mu ànd ñun ci Touba Sarsara di ziar bu baax mbokk yi ma bokkal itaay bi di leen ziar bu baax leen nuyu te di leen baal àq di leen balu àq di ziar bu baax a baax sëriñ Mbacke Faye suñu jëwriñ di ko ziar di ko ñaanal yàlla di ziar bu baax ajartu gàmmu Jóob ki nga xamante ni moom la suñu borom teg Masaalikul dinaa mu jiite jigéen ñi maa ngi koy ziar bu baax di ziar mboolem ñi nga xam ne damaa bokk ak ñoom jitaay bi gita giital suñu sëriñ suñu kilifa suñu doom sëñ Bassirou Amar jëwrin kuréel Sarsara yaatal liggéey Cheikhul Khadim di ziar mboolem suñu bokki taalib yi nga xamante ne nii danoo bokk ak ñoom liggéey bi di sant baax suñu sëriñ suñu jëwrin sëriñ Sidi Mbacke mu sëriñ Moutala Xaadim Rasul di ko ziar baax Mbacke di ko ñaanal sama borom dëgëral ko sama borom yokk ko wér ak gudd fan di ziar baax sama mbokk yi soxna yi nga xamante ne dañoo damaa nekk seen kanam ñu bokk liggéeyu Sar Sara yaatu liggéey Cheikhul Khadim di ziar baax sama secrétaire général soxna Seynabou Niang atatu Seynabou Niang maa ngi koy ziar bu baax di am mbégte bu baax ci plateau bi nga xam ne dañoo toog fii ci appel bi di waajal le 25 février waajal màggalu Sar Sara ga ci kàttu yàlla ki ndigalu Serigne Sidi di ziar baax atatu Ndeye Ndaw mi nga xamante ne moom laa fekk fii Masalikul ak mbokki taalibe yi mu àndal macha allah di rafetlu nag seen teewaay bi ndax seen teewaay moom wecc ne lépp mel na ni masaalik yëpp teew nañu wax dëgg yàlla mat nañ ko matale nañ ko sëkk di woo nag sunu mbokki soxna yi nga xamante ni seen jàmbaar ci màggalu sa Sarsara kenn nattabliwu ko ñu jàmbaar lool du ànd ak ñun ñëpp ànd bokk ndey bokk baay di liggéey liggéey bi nga xam ne moom la ñu sant ngir jëmi seexul xaddim te mu xam ne liggéey bu rafet lañ koy liggéey maa ngi leen di ziar baax di leen woo nag bés bi nga xam ne moom leen dëgmal waajal màggalu Sarsara màggalu Sarsara gi nag bu ñu ko dee wax ñun jigéen ñi kenn dimul ñu des macha allah ñu nga ca berne ba ñu ngi ca jàppale ba ñu ngi ca àddiyee kon ñu ngi ñaan sama borom kenn ku nekk loo yéene ci liggéey Serigne Touba Mbacke ca jumaa Sarsara jee yal na ko sama borom mottali te ànd koo wér a xiiwal maa ngi sant ñëpp di ziar ñëpp di ndokkeel bu baax a baax a baax sama mbokki soxna ci màggal gi nga xam ne dañ koo dëgmal muy sunu màggalu turandoo gi soxna maam jaara la maam jaaratullaah bu Bousso di ñaan sama borom yóbbuñu teeg jàmm dem ak jàmm dikk ak jàmm kenn ku nekk lépp loo yéene ci màggal gi yàlla na ko sama sotti sottal te ànd koog bokki taaliba yëpp ñoo ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp baal leenu ak baal naa leen ak ñu sama borom boole jéggal waa àdduna diaspora Sénégal fii si suñu réew ñi ngi ñëw di fas yéene jottali kàddu ndigal gi jógee ci Cheikh Mountakha siir mi nga xamante ne mooy xalif général Sénégal fii ci murit yi di ci teg kàddu sëñ Amdi Modou Mbenda mi nga xamante ne moom mooy xalif général des Baye Fall ndigal li nag li ñuy yëkkati mooy appel bi ñu war a def fii ci diwaanu Massalikul jinaa le 25 février 25 février boobu nag appel bi lan la muy waajal màggali Sarsara màggali Sarsara bi nga xamante ne ndigal li nga xamante ne ki ko yor mooy kan sëñ Sidi mu sëñ Mourtada mu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ànd koog magam yi nga xamante ne tey ñoo fi nekk sëñ Mourtada ñu koy wax sëñ Mamor mu sëñ Mourtada ak sëñ Fallou Mbacké mu sëñ Mourtada ndigal loolu nag tey. ñu ngi ko war a taxawee fii si diwaanu Masalikul Jinaan la 25 ànd koog na képp koo xamante ne yaa ngi nekk si liggéey Sarsara bi su ma ne ànd ko ñu ngi ko njëkkee fii si diwaanu Masalikul Jinaan suñu kilifa suñu jëwrin alaaji Mbakki yu fay ak suñu jëwrin soxna yi di ajaratu gàmmu Jóob feggoo koog nag ñi nga xamante ne tey ñu ngi laxasaayu nekk si liggéey bi jëm Sarsara ñu baamtoo ko si couleur rajo tool Mawla bi nga xamante ne tey ñun ak lu Baay Faal ñu ngi ko fi toog ànd koog suñu jëwrin sëñ Babacar Faye nekk si liggéey bi fas yéene nekk rek nag Baay Faal Sëriñ Bamba Baay Faal Sarsara ba am ndamu liggéey bi nga xamante ne tey moom lañ ko sàllool te bu buñ ne Sarsara tey bu ñu amee jàmm àdduna ak jàmm àllaaxira Sarsara tax ndax fa la ñu fàggoo wirdul maxfuus ku tedd ki alayhi salaatu wa salaam fekk fa Cheikh Ahmadou Bamba kon nag bu ñu demee nag ba di ko waajal war nañoo mën a gën a takk laxasaay te Serigne Bamba ku ko gis tey teg fii ñu toog dara waralu ko te soxlawul lenn lu dul néegi yàlla néeg yàlla boobu nag nekk Sarsara ñu toog seen taxaw di ko tabax te bañ si nekkee ba léegi ñu bëgg sëñ Sidi Gànnaar bëgg tey nii Masaalikul Jinaan Sarsaara ma tey noonu ñuy ñaan suñ borom bi tabaaraka taala képp ko bokk si kuréel te di liggéey di dem Sarsaara nga sóor néegi yàlla boobu noonu muy jumaa ja nga xamante ne ak maxdara ba nga xamante ne tey kii di Mouhamed Soxna nekk ki nga xamante ne moom moo ko jiite ñu collecté ko jéem a fexe jumaa jooja yegg muy kuréelu Sarsaara yaatal Serigne Touba. muy kuréelu Sarsara wa axlu café muy kuréelu Sarsara maam jaaratulaay bi ay da dem jiite ak képp koo xamante ne rek laxasaayu nga fas yéenee jëm Sarsara nañuy bàyyi suñu xel si maxdara ba bàyyi suñu xel si néegi yàlla boobu asalaamaaleykum wa rahmatullah bisimilahi aousubilah mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim naaw bu ñu sante yàlla jund ci yonante bu tedd bi sallallahu alayhi wa ñu ngi sant Cheikhul xaddim di sant yàlla nag bu wër a wër bi mu ñu boolee tey fii ñu teewe ko te teewoon ko déwén daaw di ko ñaan yàlla ñu teewe ko tey maa ngi tudd Adja bu Niang secrétaire trésorière en même temps bu kuréel Sarsara yaatal liggéeyu seexul Khadim liñ fiy teewe nag mu ñun ñëpp ñoo ko yëgandoo mooy ndigal ndigal nag bala ma cee dem dinaa nuyu suñu jëwriñ bi fi toog suñu kilifa soxna Ndey Mbàkke maa ngi lay jox sa wàcc di la nuyu bu baax maa ngi ñëw ñu fi teew ñëpp bokk ci masaal yi ñëpp ñu ngi leen di teew ñu ngi leen di ziar di ziar nag waa kuréel Sarsara ak yëpp ñu àndal di ziar suñu jëwriñ sëñ Bassirou Amar suñu jëwriñ maam Diarra Diouf liggéey bi nag daf di woote woote bi nag macha allah. ndax jigéeni kuréel yaatal liggéey Cheikhul Khadim daanaka mu mag 20 cellules ñu découpé ko cellule bu nekk am na ku nekk ci boppam ñu organiser la ngay liggéey di woote macha allah ñu nekk ci bu baax a baax comme niñ ko waxee bés bi nag comme niñ ko waxee rek da di bésu ñëpp mooy yëkkatindoo tegandoo ñëpp bokk ci kàttanu yàlla ndax ndigal la ndigal nag mooy jëfe ndigal li jóge ci sëñ Sidi moo wàcc si sëñ Basiiru suñu coordinateur suñu jëwrin wàcc soxna maam jaar suñu jëwrin ba wàcc ci ñun ñi ñu war koo jëfe ñuy sant yàlla yal nañu yàlla yóbbu ca bés ba ndax fekk nañu ñun tubaar fakkaat la macha allah ku nekk sa bopp bañ la yem cellule bañ la teg am na présidente bu jiite cellule ba di ko doxal doxal boobu dañuy ñaan yéen jigéen ñi ngeen gën koo yokk ndax bés bi suñu bés la bésul ñëpp la. réussite bi bu réussir ñëpp la ra ñëpp la réussir te yaakaar naa bis buñ ko réussir di dina neex sëñ Sidi dina neex sëñ Mourtada te liggéey sëñ Touba sëñ Touba dinañ ci am kawe si ñor kon boog ñu ngi leen di woo ngeen feddiliwaat gën a taxasaay gën a dëgër jigéen ñi fi ndékk yéen nag ñu leen di sant di leen gërëm ndax ñëpp sëñ Touba rek moo leen ñor liggéey sëñ Touba rek moo ñu ñor kon boog sëñ Touba yal nañu defal ay xéewal te bàddil ñu te lépp luñ ci séentu yal nañ ko yàlla defal te boole ñu tàppe suñu xol yëpp ñu ànd ngir jëm Cheikhul Khadim jërë ngeen jëf. ñu ngi sant ñëpp ci kàddu yi am na solo lool. waaye nag ñu ngi jox sunu kilifa soxna Ndey Mbàkke bintu soxna bintu Mbàkke ibnu Sëriñ Mbàkke Madina bintu Sëriñ Mbàkke Madina kon nag euh, ñu xam ni rek moom moo fi toogee jotaayu Serigne Touba ñu ngi koy jox wàccuwaayam euh, doon jëmm ju dal ku bëgg Serigne Touba ku fonk mbooloom Sarsara activité yu ñuy amal fii euh, buñ koy def këram la ñuy woo waajalal nu berne yu am solo. yaakaar naa ni bu ñuy dem ambassade sax day dagg yiteem ànd kook ñun moom taalu bi rek moo ko ñor loolu moom loo xamante ni lu ñu mën a seere la ndax ma shahidna illa ma alim na nit lu muy wax rek na doon lu mu xam waaye loolu moom ñoo ko dund ak moom kon ñu koy jox wàccuwaayam eh, di ko jox kàddu yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ne ci sa tur sa sant di jiital ci nuyoo bi Seex Muhammadu di ci teggit buntu yoon wi di sëñ am di nga xam ne ne Cheikh Ibrahima buntu seexul Khadim mooy buntu yoon wi di nuyoo nag ci sunu toogaay bi ñoo ngi koy tàmbalee ci ndax nuy dañuy dem Sarsara waaye daa am loo xam ne fala ko sunu borom jaarale ndax sëriñ Sarsara man sama maam di sëriñ Modou Dieng Mbacke dafa murit sëriñ Touba am fa moom ñeenti at daanaka lu fa sëriñ Touba am rek am na fa lu di te boobu fukki at ak juróom-benn la am sëñ Dame Abdourahman loo bokk ak yaayam ndey bàyyi di nijaayam ne Seexu Xadim damaa bëgg mu ñëw mottali si fi àlluwaam booba Serigne Touba nangut gone gu fa ñëw te moom ci fukki ak juróom-benn la fa demee di gone gu ndaw ba am fa ñaar fukki doo ko wàññi ko keroog ba ko Serigne ne ko damaa bëgg nga dellu ndax am nga sama ngërëm am sa ngërëmul nijaay di Seex Abdourahman te damaa bëgg nga dem jàppale ji ko ndax day mag da koy jooy ba waxtu wa delsi sëñ bi rombaat ko fa ne ko Mamadou Nasir la ko daa wooye looy jooy mu ne ko man su ma xamal ne su ma amee ngërëmul yàlla tàggoog yow du ma ko wut su ma xamoon ne su ma mayee ngërëm sa ngërëm tàggoog yow duma ko wut ndax man yaa ma gën a sama lépp mu bàyyi waat ko fa juróom benn weer nax ko bind ab leetar def ko ci téere ne ko damaa bëgg nga yotal ma ko sa nijaay loolu moo di wàccam nee na kër gi mu jaaroon ci Kajoor maanaam doo fa sàkku ay xéewal lu mu añee wala dara ba muy ñëw kookaay njëkk jébbalu ci moom bi mu laata ak si ndaam juróom-ñeent fukki jonga topp na ko kon ku ne xam ne liggéeyub Serigne Touba du caaxaan boo gisee sunu coono bii ñu di ko daj loolee moo tax ndax sëriñ Touba daf ne gisul lu gënu bi Serigne Touba nag lu mu gisul lu ko gën ku def leneen defe naa ci njuumte nga ne kon nag ñun ak bi rek am ñor. moo tax nag di ci dox guddi di ci dox guddi di dox suba di ci dox ngoon taalib Serigne Touba rek lañ bëgg doon léet da ngeen a baax rek waaye su ngeen waxee mu doy ndax nit moom lu mu moom ñàkk ko yoral daf leen a war a sant gërëm leen fii ku fi sëriñ Serigne Touba tax kon nag bu noom amee ci sëñ Serigne Touba lu bon bon bon bu ngeen waxee mel na ne ñun ngeen waxal kon nag bu ngeen waxoon rek mu doy ah maa ngi wax nag ci turu sama mbokk sama xarit di sama léppit nag di maam Issa Mbacke ndax suñ boroom dafa jogal buy dem Sarsara def ma xarit def ma sët ndax ku ne xam ne sëñ Massamba ak Cheikh Moustapha rek ñoo bokk lañ bokk ak Serigne Touba muy baayam kon nag doomam sama maam doomi sëñ Modou Fatou Khari sama maam rek lañ mën a doon. bu dee ci cosaan ak niñ ko niñ koy waxee maam rek la man a doon ci man di sama xarit nag di dal sama kër ñu am lente ba may dem sa saara di xeñtu sëriñ ma dujee suñ borom jaarale ko loxo mi ñuy ànd di fa dem kon nag tey bu fi nekkul su ma fi toogee di wax mel ne ne moom laa fi toogal kon nag maa ngi waxee ci turam ah di ko sant di ko gërëm di sant nag ñi fitoog toog ñëpp daayira yëpp bàyyiwuñ ci kenn sëñ Basiru am ma rek soxna maam jaara Juuf ak soxna Ayda dem mee toog soxna Ndey Ndaw bu nu limee dañuy jom waaye bàyyiwuñu kenn ndax noonu daal jàpp nañ ne liggéeyu Serigne Touba képp ku koy def nun nga ko defal loolu ci sunu xool lañ ko tibbee te yàlla seede na ko Seexul Xadim seede na ko la kii rek am na mag moo waxoon ne Serigne Modou Moustapha am kum taseel fekk boobu moo xawoon a nekk ku ne xam ne Serigne Touba moom saytaane moom ku baax rek lay dëkk am lu mu doxoon diggante sëñ Modou Moustapha boo ko taalibe bi mu wàññi ko kooko wàññi ko te fokk muy ku jege Serigne Touba kooko dana ko ah, kee de dana yàqu mu ne ko tuub ko ndax Serigne Touba du defar lu yàqu kon nag Serigne Touba moom ku mu jiitu ci sam xel jiitu ci sam xol dara mënatu laa yàq surtout nag ñun ñëpp ñuy dem fa nga xam ne nee na ku fa ñëw nga jé ñu jéggal la say bàkkaar kon lu fi dox saytaane yi dëkk lu baax rek waaye foofa lu baax rek fa am te kenn dootu fa dem di kon nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam jërë ngeen jëf mbokk yi ñu sant bu baax ci ñu fi yëkkati kàddu ñëpp kàddu yëpp am na solo Euh, ñu ngi sant ñëpp niñ ko waxee di si jiital soxna Ndeye Mbacke ci kàddu yu rafet yi nga xam ne yëkkati na ko euh, moom mi nga xamante ni moo fi toogal sëriñ bi euh, ñun murit moom xamuñu góor xamuñu jigéen képp ku ñu gis nga taq ci sëriñ Touba dañ lay jàppee sëriñ Touba ñu sant it sëriñ Assane moom mi nga xamante ni moo fi teewal waa gànnaar yor li nga xamante ni mooy chargé de communication foofu ci Mauritanie ñu ngi koy sant ndax def na sacrifice bu mag ngir teew yëkkati ay kàddu kon loolu lu am solo la ndax gànnaar kat ñoom lu mënti xew lu nu mënti màjjaalit waa ñu taxañ ko fa la ñuy dëgmal yóbbu ko fa ndax foofu la Sarsara nekk waaye ñuy sant tamit diaspora bi ci njiital sëriñ Fallou kase ak sëñ Isma sëñ Maguette booy sëñ Sale Kanji ñoom macha allah seen addiyee ci liggéey bi matal nañ ko bu yàgg doon ay jàmbaar yoo xam te ni desuñ ginnaaw ñu ngi leen di sant bu baax di leen wax ni nekk Sénégal ak nekk bitim réew fu waay nekk moom mën na faa liggéeyal Serigne Touba te ñoom loolu ñu nga ca waaye ñu ngi sant képp ku fi teew góor ak jigéen mag ak ndaw ci kàddu yi am na solo ñu yëkkati kàddu muy waa raditu anil mawla kuréel yaatal Serigne Touba euh, di basiro Amar ak euh, waa Hisnul Abrar ma macha allah kàddu yi am na solo ñu ngi sant ñëpp di leen wax ni nag bis boobu di le vingt cinq février ñu koy amal fii ci Masaalikul Jinaan ci ndigalu Serigne Mountakha Mbacké ibn Cheikh Abdoul Bachir euh, di ko waajalee bés bu mag foofu ci Sarsara ni ko ñëpp waxee Serigne Touba moo wax ni inna alladina ila Sarsara xad xasadu ziyaaratil faaraqu daarayni aw zaara képp koo xamante ni ñëw nga foofu ci Sarsara tàqalikoo bàkkaar àddina ak alaaxira màggal googu nag ren ñu ngi ko dippee Cheikh Mouhamadul Fadal ibnu Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul ni ko Seydina Alioune waxee mu doon jëmm joo xam ni léppam Serigne Touba la mu doon jëmm joo xam daa jaay njureelam jëndee ko ak taalibe muy Cheikh madul Fadal kon ñu ngi ci woo mboolem njabootu Serigne Fallou kenn ku ci nekk daanu dem ba ci ñoom yëgal leen li nga xamante ne mooy bis bi ni ñu koy amalee saa su nekk waaye képp ku dégg suñu kàddu tey soppeb Serigne Fallou eh, di taalibe Serigne Fallou ñu ngi lay wooy ci bis boobu di ci woo murit yëpp di ci woo julit yëpp di ci woo askan wi yëpp waaye nag di ci woo tamit ñi nga xamante ni ñooy njiital réew mi di ci woo ñi nga xamante ni ñooy xalif généraux yi di ci woo ñi nga xamante ni ñooy kilifay aada yi di sant presse bi ci seen teewaay ah, ak seen wax dëgg yàlla coono di leen ko jéggalu liggéey bi am na solo suba ba léegi ñu ngi ko ànd ak ñun di ci def liggéey bu am solo kon ñu ngi ñaan yàlla suñu borom yokk seen xéewal te gën a yokk seen tur ci dara ji Touba Cheikhul Khadim foofu la ñu yemale suñu kàddu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.